doomi ustas Babacar Omar Roqiña sëtu sayda Roqiya bintu Mawlana cheikh al islam cheikh Ibrahim Niass cheikh Sidi Lamine Niass ñu duppee ko cheikh Sidi Lamine Niass mu maam Khalifa borom groupe Walfadjri cheikh Sidi Lamine Niass naka doomi Medina Baye yépp jàng alquranul karim dugg école am fa ay diplôme jàng xam-xam jël tarixa tarbiyu xam yàlla li ni mel mi ngi ko def ci weeru janvier atam 2021 bi ci loxol cheikh Moustapha cheikh Ousseynou Aboubacar Abdoulahi Niass Thiès xaadimu salaam Cheikh Sidi Lamine Niang teel ràññee ko lool ci xidmal borom faydatu Tijaaniya ndax yàlla daf ko mayoon ak dégg ci li Baay waxoon Seydi ne la karamata akbara min xidmati lii bi xaqi man lahul basira karama gënta màgg liggéeyal ma man Cheikh Ibrahim Niass ci xaqi koo xam ne am na ak gis-gisu xol moom Cheikh Sidi Lamine Niang nag yàlla mayoon na ko gis-gisu xol boobe ba tax mu bokkoon ci ay jamiya ay mouvement ngir liggéeyal borom faydatu Tijaaniya Tidianiya ñu mën cee lim mouvement cercle des jeunes pour le développement de Medina Baye doon ay ndaw yoo xam ne ñoom la ñu faral di gis ci dëkk bu sell bi bu dimanche jotee ñuy seetal juma ji ak li ko wër li wolof di wax naan turandoo faw mu doon ay jikko ci ku ñu ko tuddee sëtëb Sayda Roqiya bintu Mawlana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim ñas bi teel a donn lii di communication ci turandoom Cheikh Sidi Lamine Niass boroom groupe Walfadjri naka noonu ci waay Lamine Niang bëggoon loolu lu jëm ci wàllum communication daan ci def liggéey yu am solo amoon ci yitte yu kawe ba taxawal chaîne YouTube le di Nooru TV leeru faytu bi liggéeyal Baye Niass mooy suñu yitte noonee la daan bàkkee boppam Cheikh Sidi Lamine Niang génn al alxames ñeenti fan ci février 2021 et hôpital El Hadji Ibrahim Niass bu kawlak ñu jébbal ko boromam aljuma juróomi fan ci weeru février 2021 ci capitalu faydatu tijaniya ci teewaayu mbooloo mu mu takku xarit sopp yi ñëpp ñëwoon gunge ko ci këram gu mujj gi ndawu Medina bàyyi nekk ci weetaange ak ñàq rek tiitaange ndax ki fi bàyyeekoo jamono ji seen mbokk la woon waaye seen lépp la woon doonoon ko am solo amoon yitte nekkoon royukaay ci mbooleem yi nga xam ne ñooy ndawu dëkk bu sell bi groupe Top Info TV Sénégal di leen ko jaale di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu jéggal ko xaare ko aljana te yéexee ñu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, nu bëgguñu ko dul baay xamuñu ko dul baay wóoluuxuñu ko dul baay fay alfu salati la fay maa salami la fay ala habibi la